mbokk yi seetaan suñu gaal 24 xibaar bi fi wàcc si mu di Abdou Faye di kenn ki bokkoon ci ñetti ñi ñu jàppandoo woon ak Baye Modou Fall alias booy Djiné moom nag Abdou Faye dafa mujje xaru ni ki démb ci guddi ci commissariat central bu Ndakaaru ginnaaw bu mu fa nekkandoo woon ak daam si Cheikh Ndiaye di ñett ñi nga xam ne ñoom lañu jàppandoo woon ak Boy jinne tey ci àllarba ji lañu fa fas yéene woon janoo ak procureur bi ngir nag def retour au parquet ngir euh, li nga xam ne moom la ñu leen di toppee ay complice doon jàppale ki nga xam ne moom moo di Baye Jin Baye euh, Modou Fall ngir bëgg a daw euh, génn ci réew mi néewab Abdou Faye nag ginnaaw bu ñu ko jëlee ca commissariat centrale bu Ndakaaru yóbbu nañ ko ca hôpital Aristide Le Dantec ngir amal li nga xam ne moom moo di autopsie suñu natango yi di Dakar Actu ñoo xam xamle lu ni mel Sunugal 24 di wéy di topp boobule xibaar ba lépp lu ci yembaat dinañ ci dikkaat ànd ak yéen ngir andil leen cay leeral